naa leen Amadou Ba bañ koy tànn tànnuñu ko parce que tànneef bi sax boo ko déggee ci ah. waxu président de la république bii doon tànn da nga xam ne voilà moo fi tànne da nga xam ne kii euh, malgré lui la ko tànnee mm-hmm. man nag dama jàppoon ne que il revenait à Amadou Ba au premier ministre Amadou Ba moom mu poser les actes et jalons yu wane ni que moom c'est un candidat dëggal boppam malheureusement il l'a fait sur le tard mais man dama jàpp ni que les les premiers soutiens de Amadou Ba <coughs> Amadou Ba waru ko séntu. ci APR man très sincèrement. man loolu laa xalaat loolu laa gis. waaw les premiers soutiens de amado peut-être ñu ngi ci biir Benno mais pas au sein de l'APR. mais nañu xool le cas le plus illustratif Abdoulaye Daouda Diallo bi mu génnee taxaw na je suis derrière lui boobu ak léegi ban acte la posé fan la amado Ba dem ñu gis ci gannaawam euh, Abdoulaye Daouda Diallo. amul su weesoo quelques cadres peut-être Farba Senghor Farba Ngom plutôt ak quelques cadres yi nga xam ne bu amadu Ba di déplacé woo ñoom de l'APR yi ngi ànd ak moom doo ci gis kenn kenn kenn kenn kenn mooy benn ñaar ñoom sanu seen candidat suñ leen woowee ci tele bi sanu mii dana dem wala keneen taxawu Sénégal dana dem mhm. mais waa APR seen task force boobu woo leen ba suba du ñu ñëw ci mbirum Amadou Ba donc y' a problème qui se pose. c' est c' différent c' est Amadou Ba c' est un candidat qui a été choisi par la force des choses on ne sait pas pourquoi président choisir ko dañu wañ loxoom ou pa en tout cas une chose sûre mooy que dëggalu ko jëmmalu ko comme candidat mais boo xoolee ce que Amadou Ba pose comme acte ci jamono yi. mais comment ça se fait ay ay ay ay ay ay chantier yu eggul lay dem di inaugurer mais non. mais loolu pour un candidat je crois que président mënoon na ko gën a ëmb gën a wormal gën a fexe ba nga xam ne APR même bu dee ànduñu ci gannaaw ànduñu ci Amadou euh, ci topp ñu Amadou Ba mais au moins yenn galgal yi du ci am mais une chose sûre mooy que Amadou est très seul au sein de l'APR mais lan moo ko tere mu démissionné ci poste premier ministre bi te mëne campagne am jii ma wane tampon wala sa euh, touche personnelle aussi. mais nag xam nga xam nga dafa am une chose moo tax euh, j'aime à le mooy que li ñu fi remarqué fii on a tellement instrumentalisé la République la l'État pour des causes et des raisons politiques ba nga xam ne ñii fiy njiit chaque jour dëgg na ñu on aime à le moom président nee na ay rapport maa koy maa ci teg sama conc mais sa fii am na ñi nga xam ne pour ñu yëngatu wax mais il sera très difficile ñu yëngatu wax waaw loolu nag mooy le problème justement de la superpuissance d'un président de la République au Sénégal hmm. waaw Amadou il n'est pas de et je suis sûr et nga tey jii su munoon saa la wax dindi sa casquette de premier ministre. dem jàkkaarloog sénégalais yi. il va le faire. Mm-hmm. mais je suis sûr et certain que y a des contraintes qu'on ne maîtrise pas. Mm-hmm. mais li leer ba leer que mooy que même s'il le candidat bi nga xam ne moom le président yëkkati loxoom ne mooy candidat ou mais dans les faits et gestes Amadou Ba n'est pas le candidat de l'APR. ça c'est sûr ça c'est sûr